jëmale ko ci thèse boo xamante ni professeur Rawane mbay defoon na ko tudde ko l'islam au Sénégal thèse boobu nag daf caa am loo xamante ni daf ko caa duural suñ ko mënee tudde noonu ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba man ak benn mbokkum taalibe ñuy wax Sidna Omar Ba bi nu gisee thèse bi nu xam ni thèse bi bari nañu tey moo leen mag thèse bi doon na delluwaay boo xamante ni gis nañu nit bind ci yoon wi ci lu dul noonu fan la ko sukkandikoo ci thèse professeur Rawane Mbaye ndax am na ñoo xamante ni thèse bi alxuraan lañ ko jàppee ni lépp loo xamante ni gis nañ ko ci rek loole lu wér la te mu bari loo xamante ni bii wérut loolu moo tax téere bii ngeen gis xët wu njëkk muy couverture bi ñu tudde ko erreur et inexactitude de la thèse du professeur Rawane Baye sur les partis concernant Cheikh Ahmadou Bamba mu doonoon téere boo xamante ni bu ñu amuloon aw fit du génn biñ koy waajal di ko bind lu ne dégg nañ ko ci waaye nag ndagam ay wax day jàll waaye mbind moo fiy sax te tees bi ki ko bind ab tolluwaayam ci xam-xam ab tolluwaayam ci réew mi ak post yi mu fi occupé ndombay tànk yuñ ko fi takkal mu doon it boroom xam-xam di intellectuel ñu bari jàpp nañ ni lu jóge ci moom rek mook alxuraan ñoo yem ñi doon xataraayu nag ngir bañoon téere bi génn téere bi benn yoon lañ ci tudd aw turam muy ci titre bi xamale ni thèse bi ab thèse ma waaye tontu nañ ko lu mu dëngal lu ne jubbanti nañ ko ba mu jeex te tudd ñu ci aw turam xulowuñu ñàkk koy teggin saagawuñu defuñu dara waaye nag bi ñu koy waajal am na ñu ma doon wax ni ma moom li mu jëfal lislaam waru leen a jóg di ko jéem a weddi ma ñooña nag ndax moom dafa jëfal lislaam lu sëriñ tuuba jëfalul lislaam ba tax mu bind ci sëriñ bi lu wérut nu gis ko di ko bàyyi ndax nit ki bala ngay bind ci moom danga ko war a gëstu thèse bi bi mu koy bind ñëwul Tuubaa te jamono jooju ñetteelu xalifab sëriñ Tuubaa di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu ngi fi mënoon naa ñëw def ay gëstu booba mag yi gedde yaa ngi fi seexi sëriñ bi am na ñooñ ñi ngi fi woon waaye mel na ni noonub sëriñ Touba bi nga xamante ni bi ñu indee sëriñ bi njaareem ci weeru janvier atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar di 1912 ca weeru octobre wa muy fukki weer ginnaaw bi ñu indee sëriñ bi njaareem lañu fi indi koo xam ni ndeyam tubaab la baayam tubaab la li ci ci jublu mooy ndeyam ak baayam yëpp ay français lañu waaye baayam doonoon fonctionnaire ñu affecté ko woon Algérie mu jàng mag juddoo Algérie jànge fa ba gënoon dégg arab yi arab ba ñu ko daan wooyee al hulema te moom du woon ab jullit du woon arabe itam français la woon ñu di ko wax euh, Paul Marty Paul Marty moom i nag moom la ñu takkal ndomb ak tànk goog ci moom la njëkkee muy le directeur des affaires musulmanes ndax la ko le directeur des affaires politiques moo fi amoon ak le directeur des affaires indigènes muy ki gàlla woon mbirum politique bi ak ki gàlla woon mbirum indigènes yi ndax indigènes yi moo doon ñan mooy ñi nga xamante ni bii du ñoon ay citoyen citoyens yi mooy ñi juddoo woon ci ñeenti communes yi muy commune um Ndakaaru commune ub um Gorée commune ub um Tëngéej di ak commune um Ndar ñooñu ñoo doon ay citoyen waaye ñi juddoowul foofu ñoom lañ doon woyé ay indigènes mom mi nak don Paul Marty mom mo tegoo won wala moo doon saytu mbirum jullit yi muy li mu bëgg wax mooy directeur des affaires politiques moo fi amoon ak directeur des affaires indigènes ki tegoo mbirum

étude boo xamante ni mi ngi ko tuddee les murit d'Ahmadou Bamba muy murit sëriñ bi étude ba la nga xamante ni moom la ci jublu woon muy euh, jéebaane sëriñ bi ak yoonam bi ak muritam yi munoo ñëw ci am réew fekk fa nit defagoo fa am at sax mën a def ab étude ci moom kon moom Paul Marty ay rapport yu mu fi fekk ca la sukkandiku ba def étude boobu te ndagam indi nañ ko Sénégal dafa waroon a gëstul boppam lu ñutul boppam ba la mu gis mu bind étude bi waaye defu ko ci mbind yoo xamante ni bii wóoru ko wér na wala wérul ci la sukkandiku ba bind étude boobu étude am boobu nag li ëpp walla lu bari ci li professeur Rawane Mbaye indi ci thèse am boobu mu tuddee l'islam au Sénégal ci la ko sukkandikoo njuumte yi mu juum nag mën nañ koo tënk ci ñetti njuumte bu njëkk bi mooy njuumte yoo xamante ni ci ay lël la muy ay dat yu muy jaxase muy bi njëkk ñaareelu njuumte wi njuumte la loo xamante ni mën nañoo wax ni moo ko teyal boppam ndax nit ki booy wax ci moom ñu xam ci moom ak njabootam nekk fa danga war a dem laaj leen waaye su fekkee danga nga teñaxu rek njuumte loo ca def day mel ni yaa ko tey ndax mënoon nga am lu leer doog a bind beneen njuumte bi ci des muy aw duural woo xamante ni duural na ko lu sëriñ bi walla ay duural ndax mbokk na ca téereb sëñ bii di masaalikul jinaan gétti gu mu ko walla woyefal gum ko woyefal waxitam itam sëñ bi daa jàngale ak yare mu xam le ni amul solo waaye ba ca gën a yéeme mu wax ni sëriñ bi ay taalibeem daf leen a xiirtaloon ci ñu liggéeyal ko te sobantal ak jaamu yàlla wax ni sëriñ bi da doon digal ay taalibeem ñu di ko liggéeyal maanaam liggéeyal ko moom Serigne Touba moom la digaloon ay taalibeem te jaamu yàlla gi moom mu woyofal ko loolu mën naa jàpp mën nañ koo jàpp ci li mu indi ci thèse bi ñun nag bi ñu koy tontu dañuy dem ci thèse bi dañuy indi xët wa nga xamante ni ca la wax wax ji

ci njeexteel téere ba ci annexe ba lu mu wax te du noona lanu ko weddee fa nu ko sukkandikoo indi nañu ko kon noonu yi la ñu bindee téere bi ba mu egg njuumte li nga xamante ni bii mooy correction numéro 1 te soo demee ci thèse bi ci xëtu ñetti téeméer wa ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett muy page 398 njuumte bu njëkk ba foofee la ko defe ndax moom rawaan bay dafa bind wax ni sëriñ bi day wax nañu walla mel na ni mu ngi sañ ci dëkkam boobu mu tuddee Daaru Salaam ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar muy 1887 nee na mu ngi dëppoo woon itam ci gàddaayu yenent bi ci atum junni ak ñetti téeméer ak juróom muy 1305 mu ni dëkkam boobu mu sanc muy daaru salaam itam nag nga xamante ni ci suufus kajoor la nekk nee na ñooy ndax li muy jëfandikoo qu'il aurait reçu il serait établi waxin woowu moom lay waxe nee nañu ñan ñoo wax ci ci la sañ ci dëkk boobu di Daaru mu nitam il aurait reçu wax nañu it ni dëkk boobu ci la jote ndigal ci soppi aw doxalin maanaam ci la fala sose yoonu murit nee na Daaru Salaam 1887 lañ ko sanc nee ne foofa itam fa la Sëriñ Tuuba wootee wooteem boobu muy sos yoonu murit ñun bañ koy tontu dañoo wax ni moom mii di professeur Rawane Mbaye dey li muy jëfandikoo mooy li tubaab di wax le conditionnel maanaam loolu mooy wane ni nit kii li mu wax gëmu ko diw def na nàngam waaye yow mi koy wax mel na ni gëmoo ko te mooy conditionnel boobu mu jëfandikoo nun nag ban koy tontu dañ koo xamal ni ko daaru salaam googu nga wax ne sëñ bi 1887 la ko sanc day sëriñ bi mi ngi ko sanc ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak ñeent ci gàddaay yonent bi dëppoo woon ak weeru nowembre ci atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñetti fukk ak juróom benn cent 1304 la ci gàddaayu yonent bi dëppoo woon ak 1886 ci miladiya muy juddu yonent yàlla Isa ñu xamal ko ni ko loolu nga wax njuumte la ndax yoonu murit juddoowul Daaru Salaam noonu nga ko waxee sëriñ bi wooteem bu siiw boobee mi ngi ko defee Mbàkke Kajoor ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum junni ak ñetti téeméer ci gàddaayu yonent bi wara a dëppoo ak weeru sulet ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett 1300 la sëñ bi woote wooteem boobee ca Mbàkke Kajoor dëppoo woon ak weeru sulet 1883 gannaaw bu wajurum seigne Mor seli Sali wàccee ab liggéey gannaaw bi mu jógee Mbàkke kadior ñew Mbàkke Bawol di dëkk boobu nga xamante ni moom sëriñ bi fa la gane jamono mbakke Bawol googu fa la jóge dem sañci Daaru Salaam kon loolu mu wax ci sañcug Daaru Salaam ak wax ni fa la yoonu murit juddoo loolu yi leen ko ci tontu soo demee ci xëtu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent muy page te mooy correction numéro deux mooy jubba ñaareelu jubbanti bi moom professeur Rawane Mbaye nee na sëñ bi dafa am xew-xew boo xamante ni bii xewoon na te moom sëriñ bi am na xaadi joo xamante ni bii doon na jàngal sëriñ bi mu ngi ci jublu xaadima jaxate kala mu wax ni dafa am lu xaalima jaxate kala ñoom saxaloon te sëriñ bi ànd ci mu ni loola mu ngi am gannaaw boo xamante ni bii ku doonoon dammeelu Kajoor ancien dammeel la wax bu ñu doon wooyee ma koddu Fall ñëwoon na ngir am lu alal yu mu doon jox sëriñ bi sëriñ bi xamal ko ni ko alal ji léwut walla alali jàmbur yu mu jëloon ñëw bëgg koo jox sëñ bi nee na sëñ bi ni ko alal ji delloo ko seeni boroom nee na sëñ bi daf ko ni alal ji alali jullit la ndax ñi moom alal ji dañuy julli dañuy woor داني وختم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تايت طيب، نانا لولو خوكي دمال مكورد فال ولا أنسين دمال مكورد فال نانا لولو مونكو سكنديكو كي سرين بزيرو مباكي موم سرين توباه bi ñu koy tontu doon koo xamal ni ko dammeel boobu nga wax de muy ma koddu faal nun de dammeeli kajoor yi la ko dalee ci dëcc foo njóogu mi njëkk a doon dammeel ba ci sàmbalaw bi xuree jëmbooj ñaari dameel ñoo ci tudd ma kodd te fanweeri dameel lañu ak ñett ka ca njëkk di Déthié Fo Ndiogou ci atum junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent 1549 la doon dammeelu Kajoor juróom benn fan la ko doon ki mujj doon dammeel di sàmbalaw bi xuree ji mi nga xamante ni ci juróom benn fan ci weeru octobre la saay maanaam ci la faatu ci lañu ko faat ca Tiwaawoon ñu ni ko nag li dale ci dëcce foo njóogu ma njëkk a doon dammeel ba ci sàmbalaw bi xuree ji mbóoj ñaari dammeel rek ñoo fi tudd noonu nga wax muy makoddu makoddu bu njëkk ma ñu di ko wax makoddu kumba jaarin mi nga xamante ni mi ngi toogoon ci ndameel gi ci atum junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn 1766 la toog ci ndameelu kajoor bi mel na at la fa def ndax safurla fukki at ak benn la fa def 1766 la toog ci ndameel gi ba ci 1777 ñu ni ko kon ma kodd moomu day munta ñëw ki sëriñ bi di fa jébbulu ba di ko jox alal ju ko sëñ bi di wax ni alal ji lewut ndax 1766 oui dans doon damel... ba 1777 loolu dafa sore lool ak fait, Serigne Touba mi nga xamante ni ak gane jamonoom ñi koy natt ci diggante 1853 ak 1855 kon ñu bari ñi taarixal sëriñ bi loolu la jàpp ci diggante boobu bokki kon li ñu cërale woon ci euh, ay simili mat na kon pàcc bu njëkk bi di premier épisode bi fii leen ko yemale ci ñi nga xamante ni euh, professeur Rawane Mbaye tudd na leen wax ni dañoo ñëwoon ci sëriñ bi jébbalu dugg ci yoonu murit ñii ngir bëgg a jotaat seeni ndomba ñii ngir sëriñ bi dafa jóg ngir xeex tubaab bi te mu tudd ci ñoom Lat Joor tudd ci Teeñ Tanoor kon ci ñaareelu épisode bi nu indi li nga xamante ni bii moom lañu ko tontu kon noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dox daje ci ñaareelu épisode bi la, la, la,